frère, le talentueux, l'extraordinaire, le plus grand comédien euh, Abou Bilal Kouthia maa ngi lay nuyu bonsoir ana Kouthia waaw jërëjëf Pape Sidi maa nekk ci plateau bi ñun ñëpp nekk sa tur ak sa sant di nuyu tamit euh, techniciens yi waa décor ak képp koo xam ne nag euh, sponsor nga dugal sa xaalis ngir mën a am visibilité ci émission yu mag yi nga xam ne nag wax dëgg yàlla ñu ngi ci kontaan di kontaan tamit ci décor mag bi nga xam ne nag boo ko xoolee xam na pyramide bu ñu xotti la pour xam li na ci biir te bañ ko xottee gis na ci biir wax dëgg yàlla euh, mu ne décor boo xam ne cent pour cent Sénégal la kenn importé ko ña cay toog ci siège ay sénégalais ñoo ko defar ñi defar décor bi fii ci nañ dëkk ci réew mi importé wuñu leen duñu ay turc duñu ay marocain ay sénégalais lañu muy main d'œuvre sénégalais yoo xam ne wax dëgg yàlla fii ci réew mi lañ cosaanoo kon macha allah fa tuwaar fa kàlla di nuyu tamit techniciens yi ak ñi nga xam ne nag ñoom ñooy réalisateurs yi ak suñu mbokk téléspectateurs yi nga xam ne boobu ba léegi ñu ñuy topp di seetaan fii ci 2STV di delluwaat di gërëm képp koo xam ne yaa ñuy bàyyi xel di ñu seetaan rawatina nag suñu xarit suñu suñ sëriñ sëriñ Fallou Mbacke docteur nekk foofu nag ca Italie di ko ñaana yàlla defal ko jàmm may ko fat bu gudd ak wér waa Pape tey nag euh, Karim Wade nañ la indil te Karim Wade nee na balaa muy jël sa question dafa am déclaration bu muy def ba pare soog a ibbi antenne bi jox exclusivité bi ñi nga xam ne mooy waa 2STV ci benn laaj wala ñaari laaj yoo xam ne yaa koy présenté kon ñu may ko moom mu daal di ñëw def déclaration ci li nga xam ne jot na fee jaar. d'accord. salaamaaleykum Sénégal Sénégal. maa ngi nuyu ñëpp euh, ci seen toox ak seen sant <laughs> euh, bon euh, Thierno Alassane Sall cooli yëpp ci moom la jugee man du ma nit xam ne damay wax wax wax damay bañ wax waxeet sama papa waxoon na waxeet ma bañ doom wax waxeti wax papam waxet mu bañ mu jaxaso mais li ma bëgg ngeen xam ko mooy euh, euh, euh, affaire double nationalité yi wax ni affaire caaxaan la uh-huh. uh-huh. waxtaan naa ak ñi ma war a waxal li ñuy def kenn du ko dindi kenn du ko dindi Karim Wade dafay bokk par la force wax Sénégal du am élection parce que gis naa ne affaire bi Macky Sall ku ku ko napp la bëgg. Uh-huh. te comme moom ku ko napp la bëgg dina gis ku ko napp. parce que ki nekk ka Sonko fii la ko wax gatsa gatsa ñu dem sap sap mu euh, def recul. Uh-huh. mu def recul léegi nag comme que problème bi jaaxale nañ ko ci ci ay. Euh, euh, ay papier recours def lépp euh, jaaree ko assemblée dem ci conseil constitutionnel. Uh-huh. ngeen ne duñu bokk euh, loolu du fi am. waxtaan naa ba bàjjen bu góor. jox na ma ndigal ne ma góor nga te effectivement góor la. juma euh, tàggu naa si sama sëriñ nee na ma ñaanal na le tàggu naa sama yaay. Uh-huh. nee na ma liggéeyu ndey añub doom. ñaanal na ma taggu naa sama papa uh-huh. euh, te duñu ay tapet foo war di njëkk dara war di de suite tagg naa sama côté euh, yaay euh, Barboline Justine Marionnette Antoine Antoinette Delvine ñoom ñëpp sama bajeen yi góor yi ak ñëpp pare nañu pour ma gatsa gatsa bajeen bu góor gatsa gatsa nekk du du du dellu ginnaaw ah, ah. damay bokk par la parce que affaire bi dootul nekk gas sa gas sa ñax sa ah. parce que trop trop c'est trop yéen li ngeen bëgg nii li ngeen nangul Sonko pourquoi ngeen koy bañal keneen na ñëpp wàcc ci mbedd bi mhm. too waa PDS xeex man dinaa ñëw après ah. ngeen wàcc ngeen xeex dinaa leen par télé ah. euh, Facebook Instagram soo leen ba mu métti ba métti euh, ñi gaañu ñu indi sappo ñu faj ñu ci dee ñu jàlle leen enveloppe waaye génn leen xeex leen dee leen sama papa waxoon na ko en 88 bu leen gendarme yi sànnee lacrymogène foox leen delloo leen ko yéen tamit jeune PDS yi bu leen armée Sénégal gendarme yi jee bu daw taxaw leen ñu door leen ngeen nangu dee dee leen parce que boo leen deewee rek cooli joli bon voilà damay ubbi question yi pour. Euh, waaw spécialement 2STV. oui ñu laaj ñaari laaj Pape euh, Sidi. Euh, ma tontu. monsieur le président Karim xaw ma kañ ngay ñëw mais sa bàjjen bu góor booy ñëw bu ko fa bàyyi indaale ko dama bëggoon a xam lan mooy solution bi pour sa candidature finalement parce que j'aimerais comprendre lan nga lan nga préconiser lan mooy solution bi Karim Wade. d'accord laaj bi nga euh, mooy euh, léegi lan mooy solution li ma la wax le solution bi mooy dañuy génn. Hmm? Euh, du ma dem ci ñaan njëkk ci benn sëriñ waaye dinaa woo sëriñ Muntaxa ak sëriñ Tiwawan. Babacar Sy Mansour ak sëriñ Popenguine. oui sëriñ ak sëriñ yi nekk yi sëriñ tout sëriñ seriñ Dakar sëriñ Kaolack sëriñu sëriñ. oui. pour wax leen ne dañuy dem xeex su may ñëw laa koy wax mais yéen bu leen xaar ngeen dee sur le front mu jaxal ko parce que dafa ko jaxal Sonko ñu tëj ko si kaso bi man ñam naa kaso kon Sonko ganuma ndey ganuma bay affaire bi du ay coog dialogue affaire bi jaayante la xeex la gat se gat se naqu se naqu se ñambas ko ba mu sa sapp suma yaay tàggu naa ko su ma bay tàgg na ko. yaa su ma bëjjën bu jigéen nee na ma bu góor astafurla bëjjën bu góor bi nee ma bul ragal demal waaye yéenay njëkk dem dee xeex leen nañ leen jàpp dugal leen ci kaso bi ñu négocier kon ñu fi jaar négocier parce que gis nañ ma rek man nooy kontaan ma ñu yaakaar ne euh, aw ma xoox am naa xoox. te ndax ma day nooy waaye xoox baa ngi ci digg bi maa wow koŋ lay wax eh. hmm. qu'est-ce que ça veut dire Sonko rek mu selli mi nga nekkoon ñeneen ñi kaxi mu tilim mi gënuma set Macky Sall yow foogoon naa ne guerrier nga booy bu ndaw bi parki dem moo xuuxal yow da nga ragal xuuxal ñoom dinañ la xuuxal ba xuuxal ok bon fa donc rendez-vous euh, Euh, avant le 24 na lépp xonk na dara tout partout na ñu dee. yéen eh, ba pare. ëpp naa def man du ma dee. ëpp naa def waaye euh, Karim yow doo may ñu sax ñu posé waat la beneen question Karim bàyyil vocal whatsapp yi nga seq ak ñun nii bàyyi nekk si groupe whatsapp yi naan nañ dem dee ñëwal ñëwal ñu ànd man kay bañu maa dee pour yow mais ñëwal ñu ànd.